وفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yéen mbokki jullit yi yéen mbokki taalibe yi seen mbokkum taalibe Mahmoudan Mbacké moom Serigne Bassirou Anta Niang mooy ànd ak yéen ci seen jotaay bi ñuy wax al majlisu suura te muy am dimanche bu jot bu ñetti waxtu ak genn walu joté ci seen radio bi di xasida online di ci and ak seen mbokkum talube mahmudan ñu basir ñu ngi ci radio bi yépp di ci ànd ak sëriñ Modou Mbaye Thiam sëriñ Ibrahima Ndiaye Khalil ak mboolem jawri ñi nga xamante ne ñu ngi ci liggéey bi yépp di nuyu mbokk yépp sëriñ pap Gueye ñoom sëriñ Ablaye Diop sëriñ Pap Demba sëriñ pap nekk fële ca Pape nekk fële ca Parma ak mboolem jullit ñi nga xamante ne ñi ngi diglu rajo bi yépp sëriñ Murtada Gueye wante sëriñ Cheikh Bara nekk fële ca Amérique mu mel ni bokk yi sëriñ Xaadim Fay Rawena duñ ko fàtte mukk sëriñ ñoom ñëpp duñ leen fàtte ni ma koy waxee rek nun bu nu tuddee kenn rek mel na ni njaboot gi yëpp a ngi ci biir ndax ni may waxee ne sunu mbokk yëpp ay kóllëre lañ ci ñun te ñu ñuy bàyyi xel lañ di nuyu mbokk Afrique du Sud yëpp. waaye di nuyu mbokki Portugal yi mbokki Suède yi mbokki Danemark yi mbokki Norvège yi sëriñ mbokki Norvège yi ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn ni ñu koy waxe rek bu nu tuddee kenn rek mel na ni ñëpp ci biir ndax nun ñëpp suñuy kolëre la mu mel ni dimanche bu jot seen mbokkum taalumi mi di Mahmoudan Mbacke dafay ànd ak yéen seen jataay bi ñuy wax almajlisu susura mbokk yi nag mu mel ni jamono yi dafa am lu nekk loo xamante ne lu sonal adduna bi yépp la nu war ci ñaan waaye war di ko bàyyi xel ci li nga xamante ne moom mooy suñuy mbon boni bopp ndax sunu borom jant bépp boo xamante ne wàcce na ak mbugal rek wax dëgg yàlla ay sikkala yoo xamante ne nun noo ko génneel sunu bopp ndax sunu borom moo nuy wax ne ndax dama leen di defaral suuf si ba mu pare ngeen wëlbatikuwaat di ko yàq mu mel ni kon lu ci ñëw rek ak yàqu gu aju ci ñun wante nag sunu matadi ak sunu ñëw doole mooy waral njuumte yooyu di am waaye bu amee rek nag lay jaadu nun ñëpp nu delluwaat ci suñu borom tuubal ko toroxlul ko te xam ne nguur gi moom rek moo ko moom su ko defee mu saafaraal ñu ko mu mel ni kon seen temub tey bii dañ koy tënk ci ñaar rek benn bi mooy ni nga xamante ne yoon wi doxalee na ko dëpp bi jàngoro ji amee ak léegi beneen bi ci des tamit mbokki jullit yi ñoo téléphoné ñoom ñëpp di ko ñaan di wax ne liñ ci waxoon dimanche bi jàll doyoon na sëkk waaye nag buñ ci gënee soññee it dana doon lu baax ndax ñëpp mën koo dégg te mën koo jariñoo benn bi mooy sunu kilifa diine yi li nga xamante ne doxale nañ ko dëpp bi feebar bi amee ba léegi ci seen wàllu pas-pas ci seen wàllu diine beneen bi ci des mooy solidarité bi nga xamante ne jamono yii nu nekk moom la jullit ñi war a taxawee waaye rawatina taalibe Serigne Touba yi mu mel ni kon yéen mbokki taalibe yi seen xel war naa dal seen xol war naa sedd ndax li jamonoy difficile difficile li jamonoy jafe-jafe. sëriñ si bàyyi nañ xel njaboot gi nga xamante ne lislaam ak diine rek moo leen tënk di sant bu baax Cheikh Mouhamadul Muntaxa ci taxawaay bu rafet bi ci xam gi xam adduna ak nekkal gim nekkal sëriñ Tuuba te muy dëgg ci moom mu am pëstéef ak taxawaay boo xamante ne mëni su ko ñàkk bañ a encouragé ndax lu tax xeyna yeen suñu mbokk yi nekk ci diaspora bi amna ci lo xamanteni du ngeen ko xam deug deug waye nun ñi nekk senegal di fekke waxtaan yi di fekke decision yi serigne muntaha bi jël ku ko fekke ku man di doon da nga encourager serigne muntaha te da nga xamne khalifa serigne touba bu mat limu la mbokk yi bi feebar bi amee ba léegi adduna bépp attaqué jullit mu mel ni feebar bi jullit ñi ñoo ko fi indi nga xam ne ca tàmbali ba nit ñi jéemu ñoo wax luy saafara jàngoro yi waaye am na ci ñu bari ñoo xam ne te ne dañ doon tëb di dal ci lislaam di tëb di dal ci tarixa yi ngir di profito ba message yi nga xamantene ne bëggoon nañ ko jàllale te ñeme wuñ ko woon a jàllale ñu jël message yooyu jàllale ko ba tax na am na ci jullit ni am ci tuuba yi yu mer loolu moo waroon nit ñi doon taxaw di wax naan coronavirus bi amut état bi dafay tappale loolu mer moomu ñu meroon moo tax ñu doon kàddu yooyu di ko wax waaye coronavirus bi ñëpp xam nañ ne am ndax sunuy njaboota nga Italie sunuy njaboota nga Amérique sunuy njaboota nga France sunuy njaboota nga Espagne sunuy njaboota nga Allemagne sunuy njaboota nga fépp ci adduna bi nga xamante ne ña nga siin fépp foo xamante ne feebar bi dal na ci seen kaw te metti fa lool njaboot yaa nga fa xam nañ ne feebar baa ngi am te nit ñaa ngi faatu te mi ngi dal ci seen kaw waaye nag bu nit ñëpp bëggee jël dal ci kaw lislaam l'islam dana taxaw résister ne leen ni ngeen di def du ni waaye nag Cheikh Mouhamadul Muntaxa moom jóg won leen aw yoon ne leen kat feebar bi mi ngi fi ni ngeen ko ragale nan lañ ko ragale waaye dañ leen di won nag yoon wi nga xamee ne ñun ci lañu lislaam tënk ñu war koo dawe mooy bi ci jiitu muy julli yi nga xamantene moy waxtu juróom te sunu borom yombalal nuko ko nit ki man na tok ci kërëm julli ko nit ki man na tok ci neegam julli ko Ben muske la neeku ci ben problème neewu ci mu des jullik aljuma serigne muntaha ne man kat amna sañ-sañu amna sañ-sañu sunu borom dimbale na ma ba njabootu sëñ Touba gépp tey jii su ma ne leen woon toog leen ci seeni kër bu kenn julli si kenn du werante ak man suma ma leen woon dem leen ca jumaa ja julli ji même bu fekkonte ne dañuy dem daanu dee danañ dem ca jumaa ji julli ji ngir li ma leen ko wax kon xam naa ne yoon wii nu nekk man la fi Serigne Touba teg te ñépp nangu nañ ko wante nag duma doxale noonu yéen boroom xam-xam yi nga xamante ne da a bokk ci Serigne Touba te bokk ci lislaam may naa leen daje leen ci kër Serigne Touba gi ci Touba ngeen waxtaaneel ma ba xam nan lañuy def ci ajjuma yi lan lañu ci lislaam may ak wan doxalin lan ci war a def ñoom ñu daje ci biir jumaa ji daje ci kër sëñ Tuubaa gi toog waxtaan kenn ku ci nekk génne li nga jàng ci sa xam-xamu kenn ku ci nekk génne sa xam ci àdduna kenn ku ci nekk génne li nga am ñu tënk ci la ca mbooloo mépp di juboo te mooy boroom xam-xam yi ñu ne kon nañ ko doxale te lañ juboo mooy dëkk yi nga xamante ne sëñ Tuubaa ko gor sos ko te dëkk yi sariha sariha ak xaqiqa sos ko dëkk bu nekk dafa am cosaan dëkk bi nag lay cosaanam lay aadaam lay diineem te yàlla may ko ko waru koo sàggane ndax su ko sàgganee Tuuba ak dëkk yi ci des yépp a yam ñépp maa si juboo ci ñu ne lislaam kat lim wax mooy jant bu fukki nit ak benn dajee rek juma man naa am julli ak juma mën naa am jumaay Touba di lu ay deux mille wax dëgg yàlla sëriñ bi ne kon ginnaaw loolu am na soo tànnoon ci ab famille ne nañ julli ji ajjuma beneen famille bi ci des man nañ laa mere soo tànnee ci aw xeet ne nañ julli ji ñeneen ñi ci des mën na laa mere Cheikh Mouhamadul Muntaxa ne kon nag ginnaaw ñi liggéey ci jumaa ji mat nañ ajjuma ndax ëpp na fukki nit ñaar ngir bañ kenn ku ne xeet sàngam lañ ko jagleel wala xeet sàngam lañ ko jagleel bàyyi ñi ci des kon ñiy liggéey jumaa ci ajjuma bu ajjuma jotatee te ñuy liggéey ci jumaa ji nañ dem àndandoo ak imaam àndandoo ak seen naayib àndandoo seenum noddukat ñu julli ajjuma te fasaale ci ñi ci des ñépp te loolu it la diine wax kon gàcce ngalaama Sëriñ Tuuba mu melni ni day bokul ci ñi ay jumaam tëj ba fi may wax ak yeen darul mufti non lañuy doxale dekk yi yaakar sëñ touba ci touba ay njabotam yépp tem am ci sañ-sañ ba fi may wax ak yow ni lañuy doxé duñ wal kenn duñ tas jangoro ji suñu ñëwé ci juma yi tek nañ ci ay matukaay yu mat nit ki dana raxasu ba set dana fa fekk sel yuñ ko mëna ci loxom bu kii taxawé fi kenen dana taxaw fu ko sori fo xamantene bu don tisli wala muy sekkat ba subay dara luy jóge ci mom lu koy du am bu fa jógee ñu infecté jumaa ji nettoyé ko bam set suko ko ñu lala tapi nit ñi dellu seeni kër kenn du jote kenn dara waaye béréb yi nga xamantene li sëriñ touba gënoon fonk te mo jaamu yalla te julli ba jaraloon ko mu taxaw ci géej di julli loolee tey ñëpp mënoon nañoo doxale noonu ndax béréb yi may wax mooy feebar bii nekk du feebaru feebar la boo xamante ne wax dëgg yàlla balaa bu sunu borom wàccee ci suñ kaw la kon jaadu won nañu organiser ko ba fu nit mëna jaamo yalla ba fu nit mëna ñaané yalla ñu bayyi la nu naan yalla toroxlul mboolem aduna bepp ndax sun borom wacce balaa yi waye gaawtu mom dafa yaq lu bare bare ndax febar bi nun ñepp ko ragal waye mën na no jël ay méthode yo xamné ne ñu ko sant yo xamantene bu boba du yakal ken dara te kenn ku ci nekk la nga war a nekk da nga ca nekk te danañ mën a toroxlu ñaan yàlla su ko su fee borom boroom woyefal yan bi yëpp te wàcce ko nit ñi mën a dellu ci seeni jàmm waaye heureusement soo amee état boo xam ne xamuñu dara ci diine te duñ maslaak ñi xam ci diine te dëggu ca duñ wax ak ñoom ay nit ñuy favoriser rek ñu naan ñoo jiite ay boromi xam-xam ñoo jiite ay imam te seen intérêt yi bopp rek leen téye dana yàq lu bari bari waaye kenn ku ci nekk xam ne ne réewum jullit xëy xëy jumaa yi yëpp xëy xëy te jàkk yi yëpp kenn ku ci nekk xam ne ne wóorul ci réewum jullit parce que bu boobaa laneen mën na caa judd loo xam ne moo raw lañ doon daw te mani soon na ko organiser ba kenn du lor kenn muy nii ko Touba defee ak dëkk yi sës ci moom ñun day daarul mufti gi ajuma bi wessu bi sëriñ bi déclaré ni ni la bëggé ñu ajuma nit ñi kenn demul ci juma yee ya di xat xat lo ñepp dégg ndigal kenn ku ci nekk tok sa kër ña dem ci juma ja dem julli jang alquran fasaaleel ñepp ñaan feebar bi suñ borom wacc ko suñ borom def ci ay xéewal yo xamantene ndax touba gi bokku yi bu len fàtte ne kérok biñ ba nekk ba légui ni wax dëgg yalla nit ñepp seen xalé ngi dal ndax ba légui ni amaguñ yenn jàngoro yu yokk yoo xamante ne ci biir tuuba la juddoo jàngor te ña fa nekk ñuy wér di génn di dem seenu kër kon mbokk yi mu mel ni ñaan ci la bokk toroxlu ci la bokk doyloo yàlla ci la bokk wéttalikoo yàlla ci la bokk waaye toroxlul ko xamal ko ne ko lii nga nu teg lépp noo ko teg suñ ndax yaane nu woon bu ma leen suuf si ba suuf si rafet rik waaye bu leen jëlaat ay ngànnaay di ma yàqalaat suuf si ndax ma leen ko defaral bam jek nit ki saña wo mat gaynde man ko nax ba mat ko nit ki mana nax gileem ba bënn ko ay bakkanam nit ki mana nax segg ba not ko ci biir kërëm diko nit ki mana nax nit ki mana fexé ba defar ab auto diko war nit ki fexé ba mana defar avion diko war di dem fu ko neex nit ki fexé ba mala ba gëna wex ci aduna mu not ko bam noy mu diko war man sun borom ma defaral leen loolu lepp bu ngeen bayee mu meññi di ci lek asamaan si di leen tawal niir yi wër leen di leen keral jant bi di leen leeralal naaj bi di leen leeralal ma defal leen xéewal yooyu yépp ba pare wëlbatiku ngeen di ma moy ci kaw suuf kon bu suuf yàqoo ba ma yàqaat ko yéen ko yàqal seen bopp moo ma yàqal leen ko kon bokk yi lay tax loolu dañ waruñu koo sàggane wara nañ ko favoriser bu baax a baax waaye bin amee jëwrin ju mat jëwrin kilifa gu mat kilifa muy seex Muhammadul Muntaxa bañ a topp nit ñi ci seeni wax rek waaye jëfandikoo li ko lislaam may ba fii may wax ak yéen Sénégal ba léegi am na fi ay jàkk yoo xamante ne ñi ngi julli ajjuma di ko organiser ngi julli julli juróom di organiser di ñaan feebar bi suñu borom dawale ko feebar bi suñu borom dàq ko te dàq ko ci mboolem jullit ñépp nag ñaanuñu ko ngir Sénégal képp waaye dañ koy ñaan ngir àdduna bépp ba sunu borom dakk ko ba kenn ku ci nekk mën a nekk ci li nga war a nekk kon mu mel ni mbokk yi point boobu di bi jiitu woon moom la seen mbokkum taalube mahmoudan moom sëriñ basiru antañang doon waxtaane ak yéen suñ demee ba ci kanam tuuti des na tijj fi ñuy waxe su ko defee yéen ñi nga xamante ne diglu rajo bi ni ngeen daan def di woote ci skype bi da ngeen mën a ci skype bi mbokk yi nga xamante ne telegram danañ ci mën a woote ku ko télécharger ci sa téléphone soo demee ci appel fi ngay fi ngay télécharger appel store yi fi ngay fi ngay fi ngay fi ngay google player ak yooyu nga xamante ne fi ngay télécharger li nga bëgg boo télécharger telegram numéro bii nga xamante ne numéro rajo bi la di trois cent vingt neuf soixante dix soixante six neuf cent quarante maanaam numéro bi Italie la da ngay njëkk a jiital zéro zéro trente neuf ba noppi def trois cent vingt neuf def soixante dix def soixante six des neuf cent quarante maanaam da ngay jiital ñaari zéro teg trois teg ci ab neuf su ko defaat beneen trois defaat deux def neuf def sept def zéro def ñaari six def neuf def quatre def zéro su ko defee ci telegram bi da nga mën a woote même ci émission bi joxe ci li nga xamante ne moom mooy say intervention yi nga xamante ne noonu nga gisee émission bi ak waxtaan wi nga xamante ne ñu ngi ko ciy waxtaan te ngeen koy ànd ak seen mbokkum taalube Mahmoudan Mbacke moom Serigne Bassirou Anta Niang muy man ngeen woote ci Skype bi na ngeen ko daan defee ñi xamoon Skype bi xam nañ ko danañ mën a woote directement ci Skype bi ñi ko amul danañ mën a télécharger Telegram su ko defee woote ci numéro bi nga xamante ne bu ngeen ko téléchargé da ngeen gis numéro bi muy 320 0039 329 70 66 940 su ko defee ngeen man cee woote kon bu dee deuxième point bi la deuxième point bi bokk yi bi jàll ci lañ waxtaane woon te mooy solidarité bi nga xamante ne tey julit ñépp ci solidarité boobu lañ war a ànd solidarité boobu nekkul ci diaspora bi ñu doon waxtaane léegi mi ngi bëcc ci biir Sénégal gi mbokk yi bis ni ki tey kenn ku ci nekk ci ñun ngir dàq feebar bi kenn ku ci nekk ci ñun ngir ñaan tey war nañoo taxaw ba solidarité boobu génn ci ñun ku nekk am na loo man tey Sénégal gi daara yaa ngi fi daaray alquraan yi te xale yañ fa joxe dañ leen a joxe ñii seeni waajur dañ leen a joxe nasiir ci ñoom ñu mokkal alquran wala buñ mokkalut alquran it mën a jàng léppi alquran ñeneen ñi ci des dañ leen a yëkkati jox seenub sëriñ laaju ñu leen ca dara lu dul bu yowmal xiyaamee ci sa loxo laa ko tegoon muy ay responsabilité yu mag kooku kon feebar munta am nga jàpp ci loxo xale bi naan ko dellul ci say waajur kon lañ la ko joxewoon woon matoo ko moom kay boo dee dund da ngay bokk dund ak ñoom ci daara ji soo dee faatu it da ngay bokk faatoog ñoom ci daara ji mu mel ni bu dee fii ci réew mi kenn ku ci nekk ci ñun tey sa njël mën nga cee yokk liibaru ceeb wala nga yokk ci club ceeb wala nga yokk ci ñaari kilo yaa xam fu sa trail kàttan man su donge bi ñëwee ci bëccëg gi nga tibb ne ko lii demal añe ko tibb defal ko ci boolam ne ko lii demal reere ko su ko defee bu ngoonee donga daara boobu du génn ci couvre-feu yi ñu di ko dóor wala ñu di ko ramaas wala ñu di ko sonal wala ñuy indil jafe ay daara yi am na beneen waay bu man boppam boo xamante ne bis bu set mën ngaa joxe juróomi kilo togguloo ko sa waa kër su ko defee ñu togg ko yóbbu ko ca daara ja daara ja reere ko nga xam ne sëriñ daara bi dana man ne donga yi bu kenn génn daara ji tey ndax defaral nañ leen reer andil nañ leen ko keneen ki ci des mën naa yëkkati alalam lam mën a kës néew dem teg ko ca biir kër ga ne nañ ci toggal sëriñ daara yi mu mel ni bokk yi daaru muxti gi ñu nekk ba mu tàmbalee ba léegi wax dëgg yàlla yàlla ñu ci suturaal ndax nun ñii ci wàllu boppam démb rek ñu ngi ciy waxtaan ba fi ñu toll ci daaru muxti ñu ngi organisé wu ba daara yu bari suñu boroom dimbale nu yéen ñoo ñu nekk ci diaspora bi dimbale ngeen ñu am na ci ñoo xamante ne ñu ngi ci def seenu ñaq ba daara yu ci bari tey jii fii may wax ak yéen fii ci daaru muxti nga xam ne lu ma téeméeri daara ak nangam nekk na fi ñi ngi góorgóorlu ba am na ci daara yoo xam ne jamono yi nu nekk téye nañ leen ci seeni kër di leen toggal ba dong donga ya génnuñu ci biir kër ga te loolu lépp ay ndimmal la yoo xam ne taalibe yi ñooy woote ku ca mën a jàpp ku ca mën a def dara kenn ku ci nekk ñi ngi woote di yónni di ci dajale di ci def dara teg kenn ngir mën caa ji jaboot gi nga xamante ne ñoom ñoo tumuranke te itteewoo ko fii kon ñu leen ci sant ci taxawaay bu rafet boobu nga xamante ne ba liggéey bi tàmbalee ba léegi yéen itam yéen ñi nekk ci diaspora bi li ngeen di nekk ci ay xat-xat li ngeen di nekk ci ay jafe-jafe xam ngeen ne seeni a fi nekk ngeen di wëlbatiku di jël lu mel noonu di ko def nun tam nu di ko jël di ko def ca daara ja leen di sant ci boobu nga xam ne moom ngeen waaye beneen bi ci mu mel ni kon yéen ñi nekk ci diaspora bi it nañ ko waxe woon ci yéen itam loolu mooy facilité mooy jéem a gëstu ñu nekk ci réew te ci ay wala ñu yoo xamante am mbokk ma nekk jiwét ah. su ko defee mu mel ni yéen ñooñu nga xamante ne yéen a nekk ci diaspora bi it war ngeen a tàmbali loolu nga xamante ne muy solidarité boobu gëstu ni ma ko waxee woon ci émission bee weesu ñi nekk ci biir kër yi association yi ñi ci daayira yi kenn ku ci nekk ci ñoom ñu jël seeni responsabilité ba taalu bi duñ tumuranke foofu bañ di leen delloo si Sénégal yéen ñi fi nekk te man dara la ngeen am jamono jii ñu nekk jamonoy solidarité la jamonoy bokk la ni ma ko waxee woon ne ki continuer di am salaire ba léegi na xam ne yàlla daf koo jox salaire bi ngir mu bokk ko ak mbokki taalibeem yi nekk Italie te liggéeyuñ fi mu toll mu bokk ko ak njabootam gi nekk Sénégal te liggéeyuñ moo xam ki nekk ci kër gi la ñu di ko fay moo xam ki liggéeyi la ñu di ko fay moo ki xam ki am ay problème la ñu di ko mosal dara par weer ñañ mosalut dara par weer teñ ko daan jëlee ci mbedd mi di ko jëlee ci baar yi di ko jëlee ci restaurant yi te kenn mënatu faa dem kon li ngeen yorokas néew na ngeen ko bokk. waaye bokk yi li ci daayire yi waxoon naa ko ci émission bee passé fi mu toll nii nun ñëpp xam na ne nun noo leen jaboote nun njabootu sëñ Tuubaa gi buñ amoon alal tey jii nii dañ koy wecceeku na ngeen daan yónnee ci Western Union yi di ko yónnee ci MoneyGram yi di ko yónnee ci fépp fu ñuy yónnee xaalis tay buñ amone alal joju non lañ koy jëlee leen ko yónni ci jass diaspora bi. wa alaykum salaam. wa ñi ngi sax bu de. yàlla yàlla ngi alhamdullilah alhamdullilah man Ibrahima Ndiaye. ah wa señ Ibrahima. ñi ngi siyaare baax de. <laughs> yàlla yàlla ngi siyaare. ñun ñëpp. alhamdullilah alhamdullilah alhamdulilah. ngeen def ak kay waa sant baax sant baax nag alhamdulilah. <laughs> alhamdulilah yàlla na ko ñu leen di siyaare bu baax nag. yàlla na ko yàlla. di rafetlu taxawaay bu baax. alhamdulilah. di rafetlu taxawaay bu baax. alhamdulilah. alhamdulilah di émission bi. Mm-hmm. xam naa li ñuy tàmbalee rek incha suñ borom yàggal ko fi te wéral ko amin ndax wax di yàlla sunu sag la sagab islam bi waaye nag sagab yoonu gépp la mhm. xamante ne nag ñi taxaw yi nga xam ne di tàmbalee ba nekk ni mhm. xam na ni li tubaab di wax responsabilité bi mu ci am kenn amu ko ci moo ci jëfe kenn jëfee ko ni ngir mhm. moom mel na ni taxawut benn tànk Mm-hmm. waaye ñaari tànk yëpp la joxe mm-hmm. ba ci jëkk mooy li jëm ci wàllu saayir si mm-hmm. kenn kon xam ne daa yëkkati alalam joxe joxe ji itam li nga xam ne ñu yore wàllu saytu wér-gu-yaram la ñuy te fekk booba moom seddali la waaye naka jekk ci lan ma sane muy laab ak set ak civilisé ndax silvissé ak set niroo niroo te bokkul mhm. kenn ku ne xam ne ne set moom ak taxaare islam rek moo am mhm. te misaal rek ngir bañ a guddal xam nga ku dem ci fan yu suturoo mhm. def la nga def def la nga war a bëgg a def ba noppi raxas see loxo rek génn mun le ne silvissé itam xëy na silvissé waaye set moom defoo ko mel na xam nga li mu bëgg a wax kon islam moom mooy li Mm-hmm. sëriñ bi nag bu ñëwee rafetlu mm-hmm. ñoom li ñu wax ko mm-hmm. jekk ñun ca lan ma sa nekk yëkkati alalam joxe la ca dolli ko waan nag mooy li nga xam ne nag mooy ñaan ndax a silaaxul mu'min addu'a muqul ibada kon loolu fekkee moom dafa booy ñaari tànk yëpp doxe ko kenn ku nekk gis ko ñun loolu sant rek lañ war a def te damay wax ne ñun Sénégal day mm-hmm. dafa mel ni ñun liñ am mm-hmm. suñ fallu daal wax ne nit ki du am lu ko jom ndax wala xadd karam mm-hmm. naa bani aadama lépp ci biir waaye nag mën na am lu mu xamut ndax bu fekkee ne information yi ñuy joxe yépp yi jëm rek ci wàllu ni ko tubaab ji defee képp yem ca ah loolu dina gàtt ci ñun ndax ni ko tubaab yi defee lépp ñoom ñoo na koo dàq ci fànn yëpp waaye téewut fi la feebar bi gën bare kon mel ni ñoom lañu def buñ ko yemee jàpp naa ne kon pour nu mujj ci feebar bi yomb kon nag ndax bu dee wàllu set xam nga yow xam nga réew fii ni ñuy tëdde ci wàllu fànn boobu bu dee wàllu faj te téewut fi la feebar bi ëpp kon jàpp naa ne fan liñ mën a fan mënta daje fan bokkut ak ñoom mooy ñaan ak dellu ci yàlla te liy ëpp ñoom ci ne wax day mel ni duñ ca jëm kon ngir bañ a gudde rek mooy ginnaaw bu ñaanale si mën taxaa ji taxawaay bi ak ñu ngi ko leer itam ci wàllu jàkk yi ak jumaa yi gaaw te gi nga xam ne jàpp nañ ne am na ci ak wax ak ñàkk wax ak ñi ni war a waxal hmm, ñàkk waxtaan jàpp naa ne ñàkk waxtaan ndax jàpp naa ne bu dee ci wàllu saay bu fekkee dinoo woote wo képp koo xam yor nga parti politique laaj la ca xalaat ak sa gisiin jàpp naa itam ñiy yëngu ci diine itam bu fekk ne ak defar tax war ni man ñoom laaj itam lan mooy seen xalaat ci doxalinu diine ak ci doxalinu réew mi ndax ni amee xalaat ci diine leen amee xalaat ci réew mi jàpp naa ne su boobaa fatawa bi nga xam ne ànd ak Cheikh Mountakha ni nga ko waxee yépp da leen koo delloo ñu doxale ko doxin woo xam ne ku ko gis xam ne lii mooy aw doxalin jàpp naa ne mm-hmm. kon doxalin woowu ah, dina doon lu yaatu loo xam ne buñ sukkandikoo mm-hmm. lu bari man naa sàpp mm-hmm. yooyu yëpp nag mm, lu jar di waxtaane la boo gisee ñun say waxtaan ñu di ci gën sawar mooy réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk te jàpp naa ne kenn ëpp liwun fa ndax bari na ñoo xam ne tey maanaam am réew bu fekkee fa am ay soxna am fa ay hmm. doom am fa ay kër yemoo hmm. ki nga xamne bi ben soxna lay am gën nga hmm. bari ñetti doom kër sax léeg mu japp ne awu fa kon bu la ne bëgg na réew mi doo ko ne bëggoo réew mi ay di ne li ci ëppale ñoom bu yoree kër yow ab dëkk nga yor bu yoree ben soxna yow ñeenti soxna nga yor bu yoree ben doom ñaar kër mo yor ko ko ni maan ëppale ci dëkk bi kon ma ko gëm ba noppi nag ay taalibe kon yeen di am responsabilité ci réew mi <coughs> kon war ngeen wax war ngeen di jëf. Mm. Mm. war ngeen di di di mm. gindi nit ñi ndax sëriñ bi kat dama koy wax waxtu ne day wax ne kalaam mi wa niyaati wa fi'li mm-hmm. jiital rafetal yéeneem songu tool yi. Mm-hmm. kon xaw ma wax nit ndax am na ñoo xam ne bañunu waaye dañoo xamut. dañoo xamut ñi xam bi jàngi waa nekk. sama sëriñ mhm. wax ne usulun alal aada mhm. saabihun fit bi jaa mhm. usulun alal aada nag jàpp naa ne xañ ñu égg nekkul foofa waaye ma saabihun fit bi jaa moom foofu moom warul faa jóg kon suñu mun taxaa wax di yàlla ab taxawaayam ak jëfam ak ay waxam ñu ngi koy a baax na lool waaw bu ko defee li jëm ci jumaa itam noonu nga ci Daaru mhm. Musti jàpp naa loolu yaatu na ci yoonu murit ndax ñun feen fiit yëpp ci làmbaay ci jum jumaa ja mhm. noonu ko waa Tuubaa doxale rek ñu ko doxale mhm. mooy ñëpp daal julli si naka jëkk tisbaar bi ajjuma jotee ñoo fa dañuy julli ajjuma def ñu war a def lépp te jar jàkk ja dem kon mel na ni ñun suñ kilifa li rek mooy yoon am na kilifa am na kaaraange am na am na kaaraange am na kilifa xam nga ñaar yooyu ku ko am am kaaraange am kilifa. sant rek ñu ku ko am rek fegu. ndax waaw mi wax ndax nit ki mën naa am kilifa du am kaaraange mën naa am kaaraange te du am kilifa ñun nag ñaar yëpp la hmm. boole. Hmm. sëñ mun taxaa kenn ku na xam ne bu dee doxalin addina rek jàpp naa ne hmm. ku ko gisut moom amut. ba noppi nag euh, baati nga moom duñ ndax. kon ku na xam fi doon ku am naa guddal mm-hmm. na sax waaye itam <laughs> sama xol dafa sedd rek ndax maa ngi diglu émission yi mm-hmm. di diglu yeete yi bu dee rek wàllu mm-hmm. jàppale itam mu dimbalante bi comme na nga waxee ci daara yi fii ñu nekk itam ci Italie jàpp naa ne lool la fi yaatu la ndax muy daayira yi muy association yi ñu ngi dajale ay lim lenn li ñu di ko nga xam ne bii ñooy wàllu fajam réew mi ndax am réew itam mu fekkee da nga faa nekk mu ay jafe-jafe Euh, mhm. li wolof njaay wax ne néew ak nag du tee jot la bu gocc mhm. waaw néew tee jot la bu gocc xañ ñu am na solo lool kay ndax milan milan ñoom itam jàmbaar nañ ci lool ci liggéey bu toskaana yoo xam ne bi maa ngi dégg naa ne jàmbaar lañ ci lool waaye na ko ñëpp ci am solo mooy na ko ñëpp doxale rek mhm. ndax jamono ji ñu nekk jamonoy solidarité jamonoy ndimbal la te it jamono ji dafa nekk loo xamante ne tënkee su ko ci ñaari fan wala ñetti fan daa nekk lu xaw a yàgg moo tax ndax bu ngeen ko xoolee Chine mi ngi tàmbali woon décembre ba léegi te fi ba léegi ni jeexagul dëgg-dëgg mm-hmm. ña nga ca mbir ma mu mel ni Italie it daanaka janvier ba léegi ñu ngi ci kon noonu ko sëñ ma Ndiaye waxee rek loom solo la mm-hmm. muy daanaka fi mu toll ma ci Italie janvier ba léegi ñu ngi ci kon lu xaw a gudd la mm-hmm. loo xamante ne na ko taalibe bi yëpp bàyyi xel rek man ni ma ko waxee yaakaar mhm. euh, cheikh mohamadul muntaha sax mom lolou lu sedd xolam lay doon ndax seigne ibrahim wax na ko mhm. léegi koo xamante ba yef yi tàmbalee rek keroog premier mhm. cas yi ñëk am nga xam benn ama sénégal benn dong lañu déclarer gu moy am solo ko mo tuba bob ci la yëkëti 200 millions te ba fi may wax ak yow kenn jotagu parce que même chef de entreprise yi fi nekk ak yooyu ñu ci gëna ñu ci gëna bari lañu ci bari ay 100 millions lañ jox waye 200 millions yi daanaka kenn jotagu ko ba léegi kon kooku xam na mm-hmm. kooku kon wóor na ko ne tey jii nii su fekkante ne ñi nekk Italie wala ñi nekk Amérique wala ñi nekk faneen dañoo jël seeni responsabilité taalibeem ay njabootam yi nekk foofu ci biir réew mu foofu liggéeyu sëñ Tuubaa ba fa nekk ñu jël ko dimbale leen ko sëñ Muntaxaa moom xolam day seddu guy ndax sëñ Muntaxaa dafa bëgg ñëpp nekk ci jàmm dafa bëgg ñëpp nekk ci loo xamante ne moom kenn du am benn jafe-jafe kenn du am benn coono kenn du am benn naqar loolu mooy li ko gënal waaye àll bi li tax yu mel noonu du ci maanaam mooy discussion si day xaw bari ci daayira parce que kii danaan nii laa ko gisee kenn nee laa ko gisee kenn noo laa waaye gisin wi li ci am solo mooy xam nañ ne Sénégal ni ma ko waxee woon ci émission bi passé li fi taxaw lépp yéen a ko taxawal sëñ hmm. Mouhamadou Lamine Bara mas na ko fee wax léegi li fi nekk hmm. lépp bu ma la dara sax waaye diaspora tey hmm. gis ngeen liggéey bu rafet xamante ne ngeen daal bisimilah mbokk mi salaamaaleykum waaleykum salaam sëñ Mamadou waaw ci de mbokkum talibé mi ñuy wax Abdou Diop Afrique du Sud. ah sëñ Abdou Diop ma yaa ngi tey. Mbacke Balla ñu ngi siara yalla yalla ngi siara siyaar te boole ñu ko nak wa Afrique du Sud yi ñu ngi fi ñu sant yàlla bu baax. alhamdulilah. alhamdulilah na ngeen def. sante sëñ Tuubaa baax na ngeen defal ci wa ñun day dañ lay bëggat di la di la chiffre nak toujours. ha ah, alhamdulilah. Euh, ndax maanaam euh, man day lima ma gis mooy. Mm-hmm. Euh, xam nga mbir ke ci bokk moo ci mën a wax xam nga am na ñoo xam ne nii ñi ngi wax di ñu tuddee leen sax ay kat ca sénégal man li ma gis mooy ñooñu dëbëruñ dañ dañ yàq ndax sëñ tuwaal ko yàlla may may nag ko ba noppi kon kon kon képp kuy waxtaan ba pare yoraat yor yor yor say say say suy suyal la say yu ma la ko jox say saf wala say doole xorom ak yooyu da koy bëgg a yàq da nga ko bëgg a yàq. macha allah ma mbokk mi nekk ci biir na xaar si ñëpp waaw euh, man li ma gis mooy euh, liñ manqué woon mooy ku mel ne yow ak sa ku mel ne fi Moustapha Mbaye Samb. alhamdulilah. ndax euh, yéen li ngeen di wax mooy ci terrain bi ndax nag li tubaab wax toujours dañu war a waxtaan ak li te thème actualité. Mm-hmm. Eh, manam gis nga eh, mbir bi man man kuma xam-xam ne yàgg na ay at yu bare bare bare bare xam naa tey loolu tax koo jóg mm-hmm. ndax maa ngi doon ko jàpp léegi sax léegi maanaam dama ko a jàpp mm-hmm. waaye tey xaw ma sax ba waaye li ma mm-hmm. dégg nga di ko waxtaan lépp lépp màggal ga ak léegi eh, lépp lu ci nekk rek dafa jaar ci alhamdulilah hmm. ah, ba nga xam ne man daal man man man ab jom daal man dama laa bëgg lool ndax lu tax mooy ah, li ma gis yow mooy dëgg boo xam ne nii ku mel ne si classe googu dañoo war na jege jege si mun taxaa hmm, hmm, ndax nag yoonu murid dafa soxla ko yàgg naa ko buy ñëw fii dafa dafa dafa am loo xam ne yoonu murid da koo soxla mooy li ñuy wax ah, maanaam conseil conseil spécial xalifa euh, général de Mouride da ko soxla ñoo xam ne dañoo jàng ba woon na lef ci ci diine fa mm-hmm. da mm-hmm. am xam-xam ci wàllu technologie ñoolu technologie mm-hmm. nga xam ne toujours bu doonte benn semaine sax war nañ bis bu nekk ñu toog ak sëñ bi donte cinq minutes sax wax ko li xew ci xew ci terrain bi te dara taxu leen a jóg lu may yàlla ak bañ fexe ba jaay seen ngor macha allah loolu la loolu yoonu mu soxla. waaye ne seen xel dal suñ mun taxaw moom am na ko moom am na loolu. faneen ba ca defaat mooy li tubaab di wax euh, commission de discipline yoonu murid da ko am. Mhm, mhm. ba nga xam ne nii képp wàcc aw yoon. Mhm, dañ lay woo ci njëkk ak teraanga li nga nekk soo ci mënee génn ci njëkk ak teraanga génn soo ci génn ñu yebal ay nit. jox leen ay matax ñu ñëw jël ci la jekk ak teraanga bañ am dara bañ am mm-hmm, mm-hmm. nga ñëw toog ak sëñ bi mu wax la li mu bëgg mm-hmm. boo ko mënee def fali laay am na soo ko mënut a def ñu génn la ci yoonu murit parce que yoonu murit sëñ Tuubaa ba mu koy ba mu koy fondé weelaaf ko woon a jóg waaye nag ay bokkaaleeg ay ay ay di teg sa bopp foo nekkut ak yooyu tax ko woon a jóg Sëriñ Tuubaa dafa jaayante woon Sëriñ Tuubaa dafa dafa ne woon yujawir hoku mhm. khadiman laho bihi bihi sirtu mhm. sakhur bi takun tasanahi yujawir ni mhm. kal hat lolou ak jayante la won bon bu mu dem ba ci bir muqaddimatul amda serigne touba fay ko ci nifali wa itqa'i wa fawsi bila ana bi kawni al mustafa tatabayyan kon kon lolou mo waral fi ma nek ak fi nga nek sorena lol xamna yow sax jamu yaangi senegal bu fekke djum ma ngi sen ma ngi daru mawtini mo kon kon kon mo waral fuñ mëna nek nekk ñu di wax waxi serigne touba ndax lutax da daa yalla ba yalla fayé ko fayé ko jamm hmm mm-hmm. lil mustapha nawaytuma yu jaddidu sunnatool xaraawa mm-hmm. iñi ahmadu hmm ku kuko jang da nga xamne serigne touba yeesal sunna serigne touba sallallahu moo wasallam moko taxone ñëw ci kaw suuf mm-hmm. hmm amna ñu ñi jox ay cadeau ci yoonu murit te amuñu luñ wax te xamuñu luñ wax hmm loolu dafay wara a hmm yoonu murit daa war a jóg ci ay ay ay nag ak ay yu ma la wax di jënd seen ngor ak xarit taba biir mm-hmm. ndax soxla wuñ ko mm-hmm. liñ soxla mooy ku tegu ci yoonu siraatal ma mm-hmm. ndax loolu dong nu amal njëriñ kese kese bu dee alal bu dee alal fii la yem fii la yem ñu di ko doon naan xam nga loolu amal njëriñ ku képp koy faatu nga yóbbaale xol bu xal bun salim loolu rek dafa amal njëriñ. macha allah macha allah sëñ bi nag man damay fasante yow kulëre man ma bi ma bi ma xam nga euh, Skype xewi na. Mm-hmm. dëggale dëggale dëggale. <laughs> mais man dama ko ngir yàlla ngir jotanteeg yow ngir am sa numéro fasanteeg yow kulëre. barke Serigne Touba. waaw bu jeexee rek bu émission bi jeexee. boo wootee waatee ci Skype bi rek sëñ Modou mbay moomu dana la wuyu bu la wuyoo rek dana la jox numéro am. yow sëñ Moustapha Mbaye Sam daal. gis nga. yow bu am am naa sëñ Moussa it dana sëñ Moussa it incha sama xarit le bis bu set ñu gisante ñu waxtaan daa fexe moom itam ba nga am numéro am ba mu jotante ak yow incha allah mm. mu ngoog man nag man man maa ngi fii ci Afrique du waaw bu bu yow bu bu jeexee nii rek bu jeexee nii rek sëñ Modou Mbaye Thiam moom mi ngi lay dégg. bu la yónnee dana la yónnee message sama numéro wala bu la ko yónnee tamit boo woote waate ci ni ci bi ko wax ma ko yónnee. waaw su ko defee dana la yónnee message ci Skype bi numéro bi waaw. gisuma la waaye xam naa ne am nga xam-xam ci wàllu technologie xam nga ne Skype xewi na. waaw alhamdulilah <laughs> waaw alhamdulilah. boo ko downloadé rek dara taxut ma download ko lu may jot la parce que mënu ma woon a jaar feneen. dëgg la dëgg la dëgg la macha allah macha waaw kon sëñ bi ñoo ngi fasante yow kóllëre man daal mën naa ko sëñ daal mën naa ko sëñ Seexaw Balla laa cosaanoo dëkk bu ñu doon wax bayti ngera ah xam naa ko bu baax a baax waaye quatre-vingt-dix ba léegi nag tuwaa laa dëkk bayti ngera di sant Jóob ñu fa nekk ñëpp xam naa leen ah man day Diop laa sant te sa sa <laughs> baay yëpp xamoon nañ yaakaar naa daar mu si ko waxal xam kan la. Eh, Cheikh ngara. ah, ah wees naa ko xam. mi ngi dund ba léegi sax yàlla na ko may mu ngi ba ci ba ci. mi ngi moom mi ngi dëkk mi ko xam de de ñu ci bari ci wax bom sëñ Basanta Ñang. yow kay maam sëñ maam Thierno moomu ñoo daan ay doomam yëpp ñoo di mu ngok bok señ atex mbacke itam ay domam dañu ñew fii sax di gané gane si atex Ateex nen señ sëñ sëñ bis bu set ñëw fii ci sëñ seet si ko bis bu set ñëw ci señ ba set ci ko bokk mu ngoog yow señ bi da ngay sun bok te te ah. nu kon loolu nak ci bok ak yow jere jere jere an jere man man xamoon limay wër ci nit moy moy taqwa ragal jere jere jere jere xam na bu émission bi jeexee rek bu émission bi jeexee rek yow nga wax señ Modou su ko défé mu jox la numéro bi wala la joxee numéro bi rek numéro bi amna whatsapp ak yépp danañ mëna joko gëna waxtaan a waxtaan baax mbacké Mbacke jërëjëf mbacké contane na lool jërëjëf Diop ñoo ko bokk jërëjëf jërëjëf jërëjëf Mbacke jërëjëf jërëjëf di sant suñu mbokk momu mok suñu Ibrahima ndjay ñom ñëpp mbokk suñu Abdou Diop nek ci Afrique du Sud moom itam def intervention bu rafet bo xamantene suñu xol sedd na bu baax baax ci nonu mu ko waxee moy fofu ma tollu won rek ci lool la doon wax mané Cheikh mohamadou Mountakha bo gisé bi yëf tambalé rek premier cas bi am 200 millions la yëkëti tek ci table ji kon foofu lay waxee ne ab joxañ la xam nga mun Muntaxa moom lu mu wax joxañ la xam nga joxañ na ñi nekk ci diaspora bi yépp ne leen sama mbokki taalibe yi foofu nga xam ne ñoo daan liggéey ma andil ñuy def ci dëkk bi di ko andil sama mbokk yi nga xamante ne ñoom laa bokkal sëñ Tuubaa tey jamono ba dem na ba toll fii nañ ma dimbaleel sama mbokki taalibe yi nekk ci diaspora bi sëñ taxa moom xam naa jamono yi fi mu toll bu doon wala muy def ay communiqué nuyu ma leen ko waxee noonu la koy waxee mooy nañ dimbale mbokki yi kon ci laa waxee woon ne daayira yëpp nañ jël seeni responsabilité fi ñu toll dajalee xaalis yombut bokkut dajalee xaalis fi ñu toll nii yombut parce que ñi ci bari ñu ngi ci crise ñii mënuñoo daje ñii ngi ci kër yi fa nga koy yónnee sax dañ ci am ay jafe-jafe pour di ko yónnee yooy waaye nag nañ xam ne li fa nekk te dajalee loon ko sëñ Tuubaa ñoom taalibe yi ñoo ko moom mm-hmm. Mm-hmm. ñoom taalibe yi ñoo ko moom nañ jël seeni responsabilité njiiti daayira yi buñ bàyyi rek Euh, buñ bàyyi rek ñi jiite association yi di wax wala ñu yëg njiiti daayira yi fi mu toll nii ñoom ñoo ta war a taxaw jël seen numéro téléphone ni ma koy waxee ni suñ Sam joob ñoom waa waa waa waa kuréel xasida ñaataa bokk ci kuréel xasida yoo xam ne fi mu toll liggéeyuñ buñ toog di dajalee xaalis di xaar naan suba dañuy def kuréel xasida wala dañuy def nangam ak nangam nañ yëkkati lañ jot a am ak ñëw nañ seet mbokki taalibe yi tumuranke ñu dimbale leen waa daayira Milan sañ Ibrahima Ndiaye ñoom seet leen li fi nekk ci xaalis ñi nga xamante ne ittewoo nañ ko tumuranke ñu dimbale leen ci wa daire beresia sëñ ci mbub ñom nañ sét la fa nek ci xaaliss sëñ fallu mbacke ñom nañ sét la fa nek ci xaaliss ñu sét ñi ranké ñu dimbale leen luñ ci mëna doli ñu doli ko ci wa novara sëñ seexu naa mbàkke ñoom euh, sëñ sëñ ma dibo ñom ñoom ñëpp nañ fa nek ak ñeneen ñi nek ci toscana sëñ pap demba ñoom sëñ sëñ euh sëñ pap demba ñom sëñ mbay job ñom ñom ñi nek ci assistant ñom ñi nek ci njit ñom ñi nek fofu ak ñeneen ñi nek trento sëñ abdou cissé ñom ñom ñi fi nek ñepp kenn ku ci nekk tey fi mu toll am nañ ay responsabilités yoo xam ne ginnaaw toog nañ ci kër gi hmm. nañ gëstu sénégalais ya fa nekk buñ xool nag ku daan joxe daayira ak ku dul joxe daayira buñ xool ku daan ñëw daayira ak ñëw daayira parce que daayira sëñ Tuubaa hmm. alali sëñ Tuubaa duñ duñ ci xool kuñ cey dimbale ak kuñ ci du hmm. képp ku tumuranke nañ la ci dimbale yaag seen njaboot daayira yi su defee léegi ci kanam incha allah suñu borom dàq jàngoro ji mu dem italien yi nekkaat ci seen jàmm liggéey yi tijjiwaat su liggéey yi tijjiwaatee yéen ñi nekkoon ci liggéey yéen ñëpp ngeen mën a delluwaat ci liggéey ya mën a doxalaat seeni daayira mën a defa sa nang waaye rikk waay rikk waay seen mbokkum talibé mahmoudan mbàkke moom sëriñ basiru antañang moo leen koy ñaan bu kenn bu kenn ci alal tey ñi nekk ci daayira yi di tumuraange dafa mel ni am na mbokk mu nekk ci biir bismillah waaw asalaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah sëñ bi mbàkke mbàkke mën a daam gay ak mbàkke bal waaw aleykum salaam sëñ daam ñi alhamdulilah ana bokki daaru yépp kii fi ñu ngi sant bu baax alhamdulilah alhamdulilah ñu ngi leen di siyaar baax baax di siyaar te boole na ñun ñëpp alhamdulilah amin amin sëriñ ah, Abbas ak kilifa ya, rek amin amin ne noonu nga ko wax rek de waaw moom daal fi mu toll nii wax dëgg yàlla maam mbir la moo xam ne moom maam daa bonk man damaa jàpp ne daa bonk ci daa bokk sax ci ponki daayira dimbaleen ci sunu biir mhm. ñu ngi lay dégg bax sëñ waaw waaw waaw ndax am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla soxla nañ ko lool te mënuñoo wax tëggee yi tijjiwaatee yéen ñi euh, ñooñu nag wax dëgg yàlla moom fi ñu toll soxla nañ dimbal kon nag wax dëgg yàlla gis nañ gis nañ tubaab yi sax nañuy dimbale seen ñoom seen bopp ñu ngi dimbale ñu ngi dimbalante ci seen biir. Hmm. waaw te ñooñu ñooñu ëpp doole fop kon nag wax dëgg yàlla ñun ma bu ñu xam ñun moom fii fii fii Wellington moom tàmbali nañ ko moom ba yëf yi tàmbalee lañ ko maam lañ daal di tàmbali fédération yëpp lañ daal di tàmbali. di di dajale ay ndimbal yoo xam ni kenn ku nekk ka nga ka nga dendal cam soxla ko xam nga ko hmm. Hmm. waaw ndax ñu xamante nañu waaw ñi liggéey ñu leen fay sax am na lu ñu mos waaye ñi nga xam ne ci njaay dong lañ nekkoon ñooñu ñooñu fi ñu toll defatuñ dara ñooñu nag wax dëgg yàlla soxla nañ dimbal. Mm-hmm. Euh, wax dëgg yàlla noonu nga ko waxee moom moom moom moom na ci ñëpp daal taxaw rek. ñëpp daal taxaw xam lu ci waay moom lu ci waay moom sëñ bi ko sëñ Mountakha ko defal man de ñëpp xam na ne moom su ko noonu mu def noonu. su su bu ko mënoon benn julli du am jafe-jafe kenn du am jafe-jafe. xanaa lool loolu ab joxañ la loolu ab la waaw ñépp nañ ci taxaw rek mm-hmm. waaw ñun ñëpp incha allah rab taxaw leen la ci des it may may fàttali sama bopp di fàttali mbokki taalibe yi ne leen fépp fu waay nekk ci ab daayira nekk fa na leen jege ca ca ca ca ca jéem a bokk ca bu dee ab mm-hmm. daayira association yooyu kenn du ko mm-hmm. waaw ndaxte lépp lu am da daayira daayira nam ci war a taxawee moom daana ko ca taxawee même boo ci bokkut bokk ci bokk ci balay dara xew damaa damaa yaakaar ne damaa damaa jàpp ne moo gën waaw mm-hmm. kon ab Sénégal nekk te gis ab daayira daayira Sëriñ Tuubaa nekk fa wala daayira alaaji maam alaaji Malick na nga dem bokk ca ndaxte ku ci bokkut boo ba am jafe-jafe daayira yi moom duñu la mën a seetaan ndax ñoom li ñuy def yàlla rek moo tax ñu di ko def kon nag nekk ci ab dëkk nekk fa nga nekk dëkk ba te kenn xamu la jàpp naa ne loolu jàpp loolu moom jàpp naa ne gënut kon ke nyongki ngi ci suñu bopp di ci tooñ mbokk taalibe yëpp ndax sa sa morom yi dem tey de bàyyi la ci kër gi bu ñëwee hmm. li nga doon lay fekkaat rek hmm. donc lay fekkaat dem ci daayira ba ngeen wàccee kamil xamante fa loolu yaakaar naa ne kon daa bokk ci ndigal yi nga xam ne suñu tëriñ jox na ko kon nag hmm. euh, sëñ bi ñoo di baax ak di gërëm eh, di bàyyi mbokk taal ñu dugg daal di sant bu baax a baax siyaare ñëpp di ñaan sama àddina bi ci barke sëriñ Tuubaa jërëjëf jërëjëf Euh, jërëjëf suñu dam gay noonu mu ko waxee rek non la ndax xam nga dafa am lo xamantene mom obligatoire wa sëñ modan Deme modan Mahmoud modan sëñ Mahmoud dafa lépp lu ci rëbb bëgg du suñ coobare man am loo xamante ne ni ko sëñ daam waxe lu am solo la loo xamante ne dafa bokk ci ak nite dafa am loo xamante ne du pour daayira bi wala du pour la dafa bokk ci ak nite ak nite daf cee euh, bokk mooy nit fu sama mbokki nit rek la ñuy yëngutu dama cay ànd ak ñoom ngir ëllëg su ma tëlee même bu fekkonte ne du woon intérêt même bu fekkonte ne du woon ngir yàlla defoo ko woon ngir yàlla nit ku nekk da ngay xam ne nit doomu aadama day dem ba àgg foo xam ne du manal boppam mën ngaa dem ba feebar mënoo jóg nit ñooy dem dimbale la mën ngaa dem feebar ba faatu nit ñooy dem sang la sang la suul la mën ngaa dem ba feebar nit ñi a yóbbu hôpital nga faju ba wér delluwaat ci say njaboot mën ngaa tële nit ñi lay dimbale kon dafa bokkul ci ak nite nga nekk ci béréb la nit ñay def nga téye ci sa loxo ne sama yoon nekku ci même bu fekkee gëmoo daayira da nga war a dem ci daayira yi ndax ëllëg xamoo lu yàlla di dogal kon loolu ñu ngi ciy soññ ñëpp kenn ku ci nekk tey coronavirus bi jàngal na nit ñi ak nite gis nga li feebar bi metti metti dafa jàngal nit ñi ak nite ak nite mooy lan mooy nit ma nekk nit ñi nekk fa bu kenn man manal naa lépp sama bopp ku a lépp boppam amul ku mën a lépp bopp amul ci li ñuy profité di ci siyaare mbokk yooyu nga xamante ne faatu nañ barki dem ñaari soxna soxna yooyu ak ñooñu ñu doon denc Bergamo muy daw yaram tey ñi ngi noonu àll àll lañ faatoo faatu nañ ci jamonoy balaa mu ni su leen a indi Sénégal parce que jamono ji yombul pour nga jël ab néew di ko indi Sénégal luñ leen mujj def foofu lañ leen denc waa léegi jullit ñi mbokki taalibe yi fa nekkoon nga xamante ne ñoo fexe ba ñu daggal leen ci armeel yi béréb boo xam ne dañ ko tuddee bérébu jullit ñi mag ñeen faa suul bu ko ay nit defut woon kan moo koy def sénégalais yi fa nekk takk seeni masque ay risque yu metti yoo xamante ne même bu faatu wuñ ci feebar bi ay risques jamono yi ñu toll ay risques la. asalaamaaleykum. ay parce que gasal la ñaanal la suuf la. asalaamaaleykum. ay sénégalais de ko dund ay jàpp. mais ay sénégalais nga ja yoo xamante ne ñoo la toppatoo ba dafa jaadu nit beru ci man kese parce que tëli dafay ñëw ndax feebar bi kenn foofu am na ñoo ñu dara faaw ay kon nit sëriñ Mountakha li muy soññ sëriñ Mountakha ak nite la soññ maanaam ak xilaafaam ak nite la la ndax mbir mu xew rek yëfi kon ñëpp dañoo war a roy boo seetee lu xew la cay def maanaam mu bismillah waaw ah, sëñ Mahmoudane ñoo lay ziar Mbacke waaw ah. sëñ Mountakha lu ah, xew mooy dana fexe ba nekk ca lañ war a allo gis nga corona bi bi mu nekk da alal joxe soññee ko nañ ko moytu démb bi muy dugg ci démb bi mu kër gi waa jën ñëpp gis image yi la nit ñëpp di def la def mooy dem fa ñuy raxasoo raxas ay loxoom ba mu set wecc jël sel yi ñuy def ci loxo yi ñu defal ko mu def ci loxoom diw ci dugg ci biir jumaa ji dem toog fa mu war a toog julli génn àndaat ak ñaari nit dem ñibbi këram kon yëfi nit la def te bu ma saan génn mbooloo mépp dañ koy topp mooy xalifa général de Mouride ñëpp koy topp ba mu xewee daa daal di yëkkati alalam jox bisimilah bisimilah bisimilah. asalaamaaleykum. salaam. waaw sëñ Mamada ñoo ngi ziar. daal na yàlla sa sa. ala saar ala saar. ñoo bu baax di émission bi. allo allo ma ngi dégg wa ñoo ngi rafa lu baax ñoo ngi rafa lu baax émission bi di nga teewlu bu baax baax rek di la ñaanal fa nu gudd yokk wala nga dé kas la waaw ñoo man ñoo ngi ziaru baax baax di la di la bu wër wër nak di ñaan subhanahu wa taala dol ak wër alhamdulilah ñoo ngi top waxtaan bi sha allah di ziaré ñi fi joggé ñëpp ak sëñ bobu doon woote Afrique du Sud ak sëñ Bass Gueye moomu génn Ibrahima Ndiaye Khalil ñong koy ziar baax a baax. Nah. di di rafetlu macha allah tomb yi nga fi jaar yépp ya. ñong koy defal lu baax baax di la ñaanal fo bëgg yegg yalla ya, nga fa yegg ci barke Cheikh Khadim ak barke mam Cheikh. amin amin ah dëgg yalla ñoo ngi leen topp bu baax a baax suñ dugg nag bëriwul waaye nag ñoo ngi top sa bu na émission bi bu sa bu na ñoo ngi koy topp nag moom. waaw di leen ñaanal rek yalla nako yalla yàlla gën jëmale kalam radio bi. Uh-huh. deug yalla émission bi mom li ngeen fi wax lepp lu am lu am solo la ñepp ak ak njàngat la mom hmm uh-huh. ndal ñoo ngi ñaan yalla mi xam du jeexal dara yalla nako gëna jëmele kalam. amin amin waaw. baraka ci al kharim ñoo ngi ziaré ñom sëñ abdoulaye Diop ñom suñ. amiin bu ñu fan nga bu baax baax. Ah, ma ngi Touba Viter bo. ah ya ngi Viter bo. waaw ma ngi Viter bo waaw. waaw nga dëgg nan wa ñu ngi sant bu baax baax xanaa di ñaan suñu borom jeexal jafe-jafe ci at bépp suñu borom yàlla nekk fi jëlee. amin amin barke ci Ahmad Lamine Bara. amin amin ah dañ do ziare nuyo rek di sant ak gërëm. bu baax a baax jërëjëf jërëjëf tur wi naan di Alé di ziare rek suñu jëriñ jooju ki bëgg ci mu nekk ci rajo bi suñu Moudou Mbaye ciam ah, wax nga dëgg Alé. <laughs> ñu koy ziare bu baax jërëjëf Mbacke. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. defe na jasaakumullah na fay ah noonu mu ko waxee rek noonu la demee mooy eh, gis nga dafa am loo xamante ne boo àndeek nit ku nite yàlla dogal mu nite da ngay nite comme moom xam nga li may wax mooy tey fi toll man damay wax ne tey buñ góorgóorloo Italie góorgóorloo Amérique ba Serigne Touba am fa ay kër Serigne Touba am fa ay taalibe yu dog yu mën a liggéeyal Serigne xam nga loolu dafay lu am solo loo xamante ne jant buñ démé ba dara galankor ko dañ ko wara dëgeural ndax liggéey sëñ tuba continuité la manam jant bépp boo xamantene dem nañ ba lu mel nii am te xëy na lu mel nii mën naa am téeméeri at yu nekk benn yoon la ci am daanaka bañ ko talee gëstu ba léegi doonut luy am bis bu set kon fiñ tollu toll li ñu war a njëkk a def mooy fogo mooy mooy fogoru xam nga nit ñi dañuy wax ne eh, faju fogu moo gën faju tey fiñ tollu ñun fogoru la ñu war def fogoru xam nga mooy lan ñu fexe ba taalibe yi Sëñ Tuubaa yi nekk ci àll bi ñu téye leen bañ dëgër ba bu jàngoro ji jàllee ñu continuer ci seen dëgëraay boobu ba liñ doon participer ci Touba di ko participer ci dëkk murit yëpp di ko participer ci Sénégal ñu gën a mën a continuer di ko kon fi mu toll jamono jii fi mu toll foofu moo taxoon ci émission ba tollu ma ne fi toll tolluwuñ ci fu ñuy sax weccee xaalis di yónnee waaye dañoo toll ci nañ réew mu nekk na gëstu ña nekk ci biir réew ma ca Tumuranke Amérique gis nga jamono yi fi ñu toll metti na lool moom itam Espagne gis nga ko ndaka jekk liggéey amu foon ñu bari dañ daan jaay liggéey yi bariwul woon te fi ñu toll daanaka ñi ngi bëgg a dab Italie ñoom itam ci mettiwaay gu metti te ñoom immigration bi sono na leen ba bari woon na ñoo xam ne dañ daan tëdd ci mbedd mi tey fi ñu toll daayire yi war nañoo taxaw nekk ambassadeuru Sëñ Tuuba ambassadeuru Sëñ Tuuba pour sowe nit ñi fa nekk tey fi ñu toll daayire yi dañoo war a nekk ambassadeuru Sëñ Tuuba tey France gi foo takk weesu na ko état yi dañ ko jëlale tay daayire yi ñoo fa war a nekk ambassadeur ndax suñu tuntaxaa bu ko mënoon mooy jël avion dem Etali di toppatoo taalibe di leen dimbale waaye nag ay représentant yi fa nek nga xam ne ñooy ñiitu daayire ni ma ko waxee léegi sëñ Sam job ñoom yen ñi nekk ci kuréel yi sëñ Ibrahima Ndiaye ñoom ñi nekk Mila waa 18 safar woo sëñ sëñ sëñ sëñ Pape Demba Dia ñoom ñi nekk Toscana ñi nekk sardegna ñi nekk faneen ñi nekk Rome ñi nekk mm, Piacenza ñi nekk Parma sëñ pap Mokhtar ñoom ak ñoom ñëpp nga xamante ne ñoo nekk ci liggéey bi tey ji nëga ni da na gën a laxasaay takkaat seeni laxasaay sëñ Pape Makhtar ñoom sëñ sëñ Pape Demba Ja ñoom am na loo xam ne ñoom xam nañ ko ci réew mi mën nañoo gëstu nit ñi ay association lañ ngi liggéey ci syndicaliste yi ñi ngi liggéey nangam su ko defee ñu gëstu njabootu sëñ Tuubaa gi nga xamante ne ñi ngi ci àll bi te di taalube tey njaboot gu sant Mbàkke wala ñu sant Buso wala ñu sant man te nekkoon ci réew mi te nekkuñu ci ay yëngatu yu am solo ñu gëstu leen fexe ba daayira yi jàppale leen suñ ko ittiwoo suñ demee ba nag mën a dajaleel seen bopp te la ca daayira ba ittiwoo wuñ ko bu boobaa moom seen waaye buñ ko ittiwoo rek nañ ko jël dimbale ci mbokki taalib yi su ko defee bu ëllëgee danañ mën a dëgëraat taxawalaatal kër sëñ Tuubaa yi taxawalaatal daayira sëñ Tuubaa yi taxawalaatal njabootu sëñ Tuubaa gi danañ taxaw tamit danañ dimbale tamit ba nga xam ne njabootu sëñ Tuubaa gi nga xamante ne ñu ngi fii Sénégal te ñu leen dimbale nañ bàyyi xel loolu bokk yi li tax ñu war a jàppale ñëpp am na fi njabootu sëñ gu nekk fii Sénégal gu nekk fii Sénégal goo xam ne wax wax dëgg yàlla mën nañ ne jërëjëf suñu borom subhaanahu wa taala moom mi nu booleeg suñu taalibe yi nekk ci jaspora yi parce que tey am na ci sëriñ su nekk fii ñoo xam ne budul woon ak diaspora bi bala ñuy tabax kër dana yomb dana jafe lool bala ñuy yor kër dana jafe lool diaspora bi ñoo ci taxaw soo xasee ba àgg Italie wala nga àgg Amérique wala nga àgg Afrique du Sud wala nga àgg fu mu mën di doon xàmmeewuñ ki sant Mbàkke ki sant Busa ki sant Jóob ki sant Jaay boo xasee ba ne ab sëriñ daa rek danañ la teral yëkkat seen addiye jox la jox la seen teraanga sooy dem ñu gunge la foo bëgg a dem ñu yóbbu la fa ba ñu ci bari tey defar nañ seeni kër fii man faa yor seeni soxna ci sutura te kenn xamalu leen dara kon bokk yi ñun ñëpp di njabootu sëñ Tuuba nañ leen encouragé ci jamono yi ñu nekk nañ dimbale seen bopp taxawal seen bopp ndax itte woon nañ ko ndax nun ñi day tay buñ amone dara ci alal dañ koy wéccé di ko yonné di len ko yonné fofu ngir ngeen di ko dunde te loolu lan gëm loolu lañ japp ci suñu xol ndax yaakar nañ ne li nekk fofu nok yeen noko bok no len wara sam no len wara taxaw no len wara ñaanal ginaaw buñ défé ñaan yi ba nopi nak ginaaw suñu tuba mom organiser won na ay njabotam ba fuñ nekk danañ def daayira fuñ nekk danañ di teg danañ man dara rik way rik way rik way liñ leen di ñaan yeen taalibe yi nekk ci diaspora bi yépp rik way liñ leen di ñaan yeen taalibe yi nek ci diaspora bi yépp bu len jël benn dërëm te njabootu sëñ Touba gi nekkul fofu lijeenti wuñ ñen bañ tek len ci yoon nañ len lijeenti bañ tek ci yoon ndax moy tax kat bu ëllëgé fondement bi dëgër parce que état ci bopam gis nga ko tay état bi mu démé état état état état du diiné du dara té état yi ñi ñu jangal aw yoon biñ démé ba jafé jafé am dañoo yëkëti xaaliss né nañ ko dimbalee nitu mu ranké ñañ mëna dagg seeni salaire ñu dagg seeni salaire dimbulé ko réew mi ginnaw état man lool waxuma la nun ñi di julit waxuma la ak nun ñi di julit nak no leen ko wara dakk nun ñi di talubi seigne touba ño leen ko wara dakk ndax nun solidarité ak ndimbal ku nu xam ci nga nu ma sa xam ci lañ ma sa nek ndaka jek touba ge tay ay millions yu da ba fay dund tay ñi ngi ci couvre feu nit ñi mënu ñoo genn ñi ngi ci état d'urgence ñun wa daru muuti gi tay mënu no dem touba dañ ko téré parce que dañoo séparé région louga lañ mëna dem mais mënu té touba ci raison jurbel la fi tollu mënuñu faa dem am na ci kilifa yoo xam ne semaine bi yépp ñu ngi bëgg a dem àgg Touba mënuñoo àgg kon ñu gis ne difficile googu ñu koy difficile bu fekkente ne dëkk yi taxawuñ ci solidarité bu mat sëkk nit ñi danañ tumuraange parce que fii tey daayira ni ma leen ko waxee fii ci fii ci Darou tey lu ma téeméeri juma téeméeri daaraa fi daara ju ne lu ëpp téeméeri nit a nga tey bu fekkoon amul woon ay bonne yu taxaw yoo xam ne dañuy togg seen kër di leen yóbbul di dajale ab ceeb di leen yóbbul kon tey daayira dañ waaye nag solidarité bi tax na liñ leen di tëj tëj ci kër yi déggaguñ ko fi tumurànke ci xaalis ci ci ci ci ci ci xiif Tuuba googu déggaguñ ko fa tumurànke ci xiif tooloo loolu lan moo ko waral mooy taalibe yi njaboot gi niñ àndandoo nekk benn kenn ku ci nekk li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom kon xam naa tey moom dafa mel ni eh, sëñ Modou Mbaye Thiam yaakaar naa jël nañ lu baree bari yaakaar naa jël nañ lu baree baree bari tey xam naa fekkee da nga may yónnee message sax moo gisee message bi rek ma xam ba xam fi doon waxtu wi tàll ndax tey moom dafa melni waxtaan bi dafa neex ba dañ ko top top ba jël nañ lu bare bare su ko defee rek ñu xam euh, fu ñuy fu ñuy fu ñuy fu ñuy tëjee waaye mu melni rek am bokk yi euh, comme nonu ñu ko waxee nañ taxawaat señ Cheikh bara ñom yeen ñi nek amerique euh, yeen ñi nek señ señ señ mouride Murid ñom ñoom ña ñam nekkal Portugal ñi nek Espagne nañ taxawaat ba nit ñi am solidarité bu bir daayira yi fi ñu damay wax ne ginnaaw ñoo réunion parce que téré nañ mbolo yi ñoo dajé waye whatsapp yaangi fi whatsapp yaa ngi fi barakallahu sëñ Modou Mbaye whatsapp yaa ngi fi lépp a ngi fi kon tey dafay mel ni rek euh, euh, su ko defee tey dafay mel ni tey am na fuñ mën a jàpp foo xamante ne nun ñëpp manis na cee ngëpp bu dëgëra dëgëra dëgër ba nga xamante ne tey njaboot gi danañ leen mën a dimbale danañ leen mën a saytu ba ëllëgee euh, di sant gis nga ñi doon gis nga ñi doon yëngatu ci lépp yooyu ngeen def bu taxawaay yu rafet yooyu nga xam ne yooyu ngeen doon def kon nag lii rek mooy pas-pasu Serigne mun Mountakha ni ko mbokk mi waxe legi seigne Abdou Diop waxna ko ne ko nakam xelam dal nam nam xelam dal parce que cheikh mohamadul muntaxa mom kuy diiso la ñepp am accès ci Pas parce que fay diiso di diglu so deme bo waxe ba nopi rek li ngay wax lepp da koy diglu te bu noppee sax du la ci tégal luddul barakallahu dis na ci la di def ay xalaat ay ay ay waxtaan legi ay waxtaan ku ñëmé waxtaan la ku ñëmé diiso la sun xel nun ñepp sun xel dal yaakar na ne yoonu mourid ndax nii mu jëfëndiko ci corona bi borom xam-xam yépp ñu dajalé leen ñëpp toog ñu saytu nan la ñuy jaamoo yàlla nan lañ koy doxale eh, lu ñu war a bàyyi la lu ñu warut a bàyyi la nuñ koy doxale fexe ba dëkk Sëñ Tuubaa yi diine continuer di fi dox wax dëgg yàlla dañ koy wax ne ko kilifa gu mat kilifa la kilifa gu mat kilifa la ndax bu dul woon looloo danañ def ni ñeneen ñi ci des ñëpp teg mooy bérébu jaamukaay yàlla yëpp tëj poussière ba pënd baa ngay dugg ci biir jàkka ya kenn nekkatu ci biir jàkka yi tey bu fekkonte ne Sëñ Muntaxaa du kuy diglu tey mënoon nañoo àgg foofee te àgguñu fa te dëkk murit yëpp na ci seenum xel dal ñi julli julli juróom ci jumaa yi ñi ngi julli julli ajjuma ci jumaa yi te kenn séenewut kenn kenn wàllut kenn kenn jotewut ak kenn dara ñi ngi encouragé di set daa bokk taxawaay yu rafet nga xam ne ñu ngi doon def kon nag lii rek mooy bisimilah bisimilah mbokk asalaamaaleykum waaleykum salaam koy diisoo. baax maa ngi lay suñu baax de. taxawaay ah, bi rek. waaw. alhamdulilah. waaw te a dalal seen xel rek. nag wax dëgg yàlla mbir mi. xañ na ku fi nekk tam man ngaa bañ xam dëgg-dëgg li tëdde tëddee mhm. waaye nag mel ne ni ñu koy waxee tam xañ na ñu mel ni nekk ci ñu ngi koy ak wax dëgg yàlla ni mu tëddee itam gën naa woyof noonu daal mhm. waaw te loolu lépp nag ci ndimbalal suñu borom rek ak barkeb Sëriñ Tuuba mhm. dëgg la moom wax dëgg yàlla xaw na tiis waaye nag mën naa ni itam ndimbalal suñu borom daal tàbbi na ci waaw ndax wax dëgg yàlla dégguma ci fi fenn boo xam ne bi xëy na mhm. eh, mbokk taalibe am nañ fa jafe-jafe rawante ni jëm ci wàllu tawet si xam naa néew ma amu fi de waaye bu fi am yitam xam naa du fi bari bari bu fi mhm, ci tawet waa naa dégg ko fenn mu ah, Sénégal yi dégg wax dëgg ci nekk Sénégal te ne fii moom ma ne waa nekk foofu ci diaspora bi waaw. waa Sénégal dafa yaatu. dëgg yàlla kenn ku nekk bi déggaguñ ko waa Sénégal. waaw moom dafa yaatu mënoo garanti fépp waaye daal. Hmm. ñun ñoo ko ñaani rek ñu ngi ci am ñu ngi ci am dara ak daal. Hmm. bu dee wàllu ndimbal ko wax itam mën naa ne daayira yëpp itam ñu taxaw. Hmm. di dajale ay ay nga xam ne itam ñoo ko ittoo ñu di ko yóbbul. ñi am na ak waroo tuuti ak Sénégal ndax xëy na fii moom naka jekk niñ daa dund itam taxut ko doon lu jafe-jafe ci kenn ko wàll yi ndax fii seeni dund moom xam nga dara ump la ci mhm. waaw bu dee wàllu tëj ko itam xañ na kii xamul bu ne dañ leen tëj dina leen yéem waaye mën naa ne ñun moom naka mhm. jekk ma mos a suñu bopp ñëpp liggéey rek. Sénégal boo demul daayira. <laughs> loolu am ci tool yi ñëpp dañoo tëj. <laughs> <laughs> moom naka jekk moom dugg boo bu dugg sa kër am na ñoo xam ne bu génnaatee di liggéey. mais uh-huh. nag liggéey ci ñenn waaye teewul itam xam nga réew mi itam am na ci fànn yoo xam ne itam am nañ ci tuuti yërmande. Mm-hmm. Eh, fan yi sax ñi ngi nësër ñi nga xam ne bii ñoo yëngu ci wàllu jaay ak jënd. Mm-hmm. ñàkk xam naa lu ñu jàppale xam naa ngeen ñaan ci yàlla eggale ko rek ba kenn ku ne la ci sa la dëgg la li ma la bëgg a xamal daal mooy ñu ngi sant bu baax daal ñu gën a ñaan rek waaye ñoom sant. baax comme ni nga ko waxee nag ci wàllu moom daay yëpp ñu taxawaat ci. xam ne mm-hmm. mbooloo itam bu ñuy ànd lu mel noonu itam. Mm, moom moom moo leen ci baax waaw waaw. Mm-hmm. ndax fay na maa la ko sori sana na ni mm, mm. ko sëriñ Abdou Lahad daa wax rek daan wax ne àddina moom béralul loxo mm. mm-hmm. ñi fi nekk démb nii leen fi nekk nun ñii nii leen fi nekk ñii ñu audit nii leen fi nekk mm-hmm. kon nag ñu mm-hmm. li ci am solo mooy ñu sàmm suñu ngor sàmm suñu diine sàmm suñu taalibe te jàpp ko bu baax a baax nag te bu ñuy jàll itam ñu gën a organiser gën a jàppante gën a itam gën di waxtaan te xam ne àddina moom Eh, moom nii rek lay demee jàpp naa ne daal hmm. moom hmm. wërta nekk xaba an mansour rek maanaam bu jàllee daal war nañ ci mën a jàngewaat lu bari nag lu baree bare awoon waaw rawante nag ñun ñi xam ne ay bilit lan rawante ni ñu xam hmm. ne ay taal benn yaakaar Sëñ Tuubaa daal moom bëgg naa ko ci dolliwaat di rafetlu bu baax taxawaay bi waaw comme ni ma wax léegi nag ñaan bu baax a baax rek jërëjëf jërëjëf moom waaw <laughs> baax na sant na bu na bu baax daal bu suti itam noonu ñu ko rek dégg na ko ak kastra waaye loolu itam jàpp naa ne hmm. lépp am njàng la rek ndax suñu borom def daal ci neen hmm, hmm. def daal mu def rek am na lu mu ci jublu am na lu mu ci bëgg a jàpp kon lu mu def rek am na lu ndax lii lépp war nañ cee mën a jàng xam ne àddina moom lu ne mën naa nekk waaw su ko defee ni itam mën nañ cee jàng lu bari daal xam ne ni nga ko waxee léegi mbir moom yëngut yëngutoog kese lépp mën na wax te te broullé da am lépp mën na wax te yëngut am lépp daal jàpp naa ne war nañ cee mën a jàng daal xam ne moom. Mm, macha allah moom du yëngutoog kese daal. <laughs> ndax li lépp bu jàllee war nañ cee mën a xam ne moom. ndax bu jàllee eh. day mel ni moom ndam lay doon naan su ko defee nag jàpp li ma rek ak ña loolu moom. dëgg la dëgg rek su ko defee yéen borom xale yi di ñàkk ay duros ñu ngi ci mën a bind. waaw ah, yaakaar naa ay téere sax war nañu ci mën a <laughs> jërëjëf hmm. saakum laa xayran maa ngi jégg lu baax nag ci kàddu yi am jërëjëf sëñ Ibrahima yàggal taxawaay bi jërëjëf jërëjëf jërëjëf saakum laa xayran ñu baax sax waxtu wi xam naa ne euh, fi ñu toll li ci des daanaka jeex na tàkk kon rek euh, seen mbokk mi di seen mbokkum taalibe di Mbacke euh, moom fii rek lay tëjee ay waxtaanam di soññi ñëpp rek ñëpp nu gën a Euh, ñun ñëpp nu gën a boo gisee biñ émission bi li ko sos tey mooy li ko gënoon a sos mooy di waxtaane ngir ñuy bennoo di nekk benn loolu rek moo sosoon jataay bii nga xamante ne mooy Al-Majlizou Zoura mu mel ni tey fi tollu jamono jàngal nanu ko nekk benn ci la ñuy tëjee jamono jàngal nanu nekk benn njariñ li maam ndax tey gis nga fi tollu nii bu jafe-jafe amee ñu ci bari dañuy dagg dem kenn dutu ànd ak kenn tey gis nga yéen union européen googu ngeen nekkoon union européenne fi tol tay danaka man nañu ëbatu ndax kenn ku ci nekk nga tok fa nga nekk lañ wax dama la jëlale union européenne sax waye tay fi toll ni bi jafe jafé amé italie gogou képp fi toll ni dañ na wa milan nañ tok wa milan wa novara tok wa novara wa waa fanen tok fanen kon tay nga xamné gis nga liñ doon wax mi ngi noonu gis nga liñ doon wax mi ngi noonu kon talubi yi na seen xel dal niñ ko daan waxe toujours cheikh mohamadul muntaha ak njabot gim ko andal serigne abbas mi nga xamantene moy khalifa mam tiarno ak mbollem njabootu seigne touba gep ñepp nga ñaan ñepp nga ñaan ñepp nga ñaan ñom le mam doon ñaané lool rek lañuy ñaané té moy jamiira wara lu ñaanal sax talibi yi nekk ci allu bi gep waye mbindef yépp lañuy ñaanal ñepp muccu ndax ni may waxé tay fiñ tollu ni eh, sénégalais yi seen xel na dal waye fiñ tollu ni même sénégalais yi nekk italy yi nekk amérique fekk américain yi muccu guñ muccu kon dañuy ñaan rek ñepp muccu ñepp muccu ndax ñepp muccu ci la ñepp di muccé kon yàlla na yàlla ñi muccal ñëpp euh, teg leen ci jàmm teg njaboot gi nekk fii ci Sénégal ngeen xam ne Sénégal it nag wax dëgg yàlla seen xel dal na noonu ko sëñ Ibrahima waxee léegi seenum xel dal na amuñu benn njort bu ñaaw ci li nekk foofu ndax xam nañ li ngeen fi nekkee xam nañ li ngeen fi nekkee xam nañ ne taalibi sëñ Tuubaa yi ñu ngi ci jàmm te dañuy ñaan ñu gën a nekk continuer ci jàmm ba italiens yi nekk ci jàmm ba man leen a dalalaat ci jàmm américains yi nekk ci jàmm ba mën leen a dalalaat ci jàmm nekk ci jàmm ba gën leen a mën a dalalaat ci jàmm njaboot gi léegi adduna amatul frontière adduna amatul frontière fépp njaboot gàngu kon yàlla na yàlla def fépp jàmm moom la sëñ Muntaxa di ñaan yéen ñi nekk ci àll bi yéen tam na seeni xel dal ndax seen njaboot gi nekk fii eh, média bi ñi ngi wax lu ne waaye la ñuy wax la ca am daanaka mën nañ ne bu fekkonte ne cent la dix yi sax du dëgg waxuma la quatre-vingt-dix-neuf yeneen di ci des li ñuy wax lépp dañuy wax de wacc bu ñu xëyee suba revue de presse yi li ñuy def am na Touba am na Darou Moussi nangam a nga fee nangam a nga béréb sangam li ñuy wax lépp ay waxe kese la mu daa dara mu nit ñangi julli nit ñangi jaamu yalla nit ñangi ngi nangam ndax li tax ma diko wax moy keroog bi nga xamantene décret bu mel non amna dama gis journal yépp biñ xeyé revue de presse dañ né jumaay tubaab gi nga ne wéyeen kèn julli ci wul señ na jakk yépp nañ tëj jumaay yépp nañ dara du ci dëgg fi ñu nekk day man mi di wax ak yeen ma ngi ni daaru moti ñane na nga tuubaa te bisu set ñu xamanté ci li ñuy nekk darumoti jenn jumaa ju fi tej amu fi ci yoonu wi ñu nekk ci digënté ak daaru moti gi ma xam mom jenn jumaa fi juma yëpp kenn ku ci nekk la nga waroon a nekk ñi ngi ci organiser nañ ko nag ba duñ tasaare jàngoro ji duñ tasaare dara kon nag na seenum xel dal yéen tam yéen ñi nekk foofu nun ñi nekk fi seenum xel dal ngeen continuer solidarité bi continuer gëstu sénégalais yi fi nekk gëstu kenn ku ci nekk na ma ko waxee ci émission bi bu mu yam ci sénégalais yi kat commune ba nga nekk noonu ngeen koy def rek continuer leen ko ku ci man ndimbal lu ci waay mën a def rek nañ ko ci def ñu jàppalee ko italien yi leen daloon te musiba balaa tegu ci seen kaw su ko defee ñun ñëpp ñu ñaan suñu borom teggil ñuko xamna seen jotaay bi di su sura ah, fofu lay teji ak yeen moy ci ñaan gi mu daan joxe rek fan yi bi febar bi amé ba légui bé dañ ko tijjee won tay ñu tëjee ko waye ñaan gogu ku ko dégg té man ko rek yonné won nañ ko ñu bari ku ku ko yónnee ku xam sa morom nga yonné ko ndax sëriñ bi moko ko maam jamono yi nga xamantene mbass amna té na xam ngeen ne daaru musiji lak nañ ko ay yoon ndax mbass té bobu la gënon na metti te fi ñu toll ba fii ñu toll lakkaguñ këru kenn nit ñi ñu ngi leen di def ci jàmm te moo ko joxe woon ngir ñi di ko ñaan kon ku ko man rek ci la ñuy tëjee su ko defee kenn ku ci nekk di ko def kuñ ko yónnee woon tamit nga fexe ba sa moroom jot ko muy bismillahi rahmaani rahim allahumma inna zunubi asumat wa jallat wa anta sayyidi wa ilahi ahsamu wa ajjalu allahumma ahini ala ridaka li urdiyaka hatta tarda بعولك وقوتك يا أرحم الراحمين ويا كبير يا متعالي ويا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وأدم علينا نهم واصرف أنا نقم ورجس والعذاب والألم إنك أنت الأحسن الأكرم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته